nañu jottali. waaw yow yaay jottali. waaw bal ma jottali. waaw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. mbooloo mi Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Abdul Akram mi ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbooloo mi sëñ bi ne leen di nuyu. ne mi ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Kalam ne mi ngi sant yàlla bu baax nag ne ci jataay bii ne ci daje bii ci liggéey bii ne nga xam ni ne boo ko doon jéem a saraa li tax sëñ Basiru wootee nii ne doo xam noo koy jële non noo koy firee doo ko xam ne da wane ne rek jële na ci këri diine yëpp ñëpp indi leen bëggaat ñu xam ni fenn la ñu jógee maanaam ci yàlla lañ jógee ca yàlla la ñuy dellu yàlla fonk nag dëkkandoo lool fonk ak bokk lool ne ñu fi daje ña mu bàyyi ginnaaw ne bu ci tuddee tuuti rek day wéyal la des ne tariixa boo fi gis ne ndaw jóge na sa tarixa ba ñëw toogal tarixa ba ne bu ñu wanee seen rak Cheikh Mohamed Si mii Sidi Mohamed Si mii mu seen waajur wu tedd wa Alaaji Abdou Aziz ne day doy secret ne dafa mel ne dañoo tànn la gën a baax ca kër ya ne léegi la koy wax ni ko li gën ci àdduna lan la li gën ci àdduna lan la gën fa nu jëm gën fa nu jëm mu ni ma ko laaj naa la ko mun ko ab yar la te yow nag Sidi Mohamed da ngaa yaru mu ni ko toog gi ma toog ak yow nii sax waruma ngant la ne xoolal kooku baax ne sëñ Modou Kara sëñ Moussa ne loolu moom nga fi dajeel ne yaakaar naa sëñ Moussa Mbakke moom Cheikh Abdoul Ahad ñoo ànd duggandoo fi ñoo bokk liggéey bi te waajuram def lu bari ci moom mu ànd ak sëñ Cheikh Aliou fekkaat fi njabootu Cheikh Mouhamadoul Mountakha fekkaat fi sa kilifa sëñ Saal taawub sëñ Xaadim Awa Ba ne fekkaat fi Sénégal bii jëwriñ ji mbokkum boppam Cheikh Modou Kara Sénégalu Xaadim Rasul yow daal Mbakke yaay liggéeyee kon Serigne Touba ne mu jóg mu ko déet Mbakke kaay nu ànd du ñaari nit kenn la ne boo waxee ba noppi ma wax ñu ñaanante dellu ci yitte ne loolu sëñ Moussa ne du ko ñàkk a mën a leeral mbooloo mi ak kilifay àdduna yi màndal koor bu ne nit jóge na fa ñii quarante nangam quarante trois ñii fanweer nangam xam nga leen ñenn ñi di rakkam ñenn ñi di doomam ñenn ñi samay jarbaat bàyyi seen i téyeb ñëw ne kon sëñ sëñ Basiru dajale nga fi àddina mais dajale nga fi Sénégal dajale nga fi Afrique dajale nga fi àdduna bi yëpp ne loolu nag bu amee dañuy tàmbaliwaat nuyoo bi te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatoo ne njabootu maam Cheikh njabootu maam Serigne Afe ne la ko mën waxe waaye da wax ni njabootu Mbakke Anta. njabootu Mbakke Anta. mi taawu sëñ Morane Sali. mi taawu sëñ Morane Sali. Eh, wala nga ne njabootu. wala nga ne njabootu. maam borom saam. maam borom wala nga ne njabootu sëñ. wala nga ne njabootu sëñ wala nga ne njabootu maam Saam. wala nga ne njabootu maam Saam. non Afe. njabootu Cheikh Coro. njabootu Balla Coro njabootu Cheikh Absa ak xëri Mbàkke Kumba Tayba njabootu sëñ Masamba njabootu sëñ Masamba jeey njabootu sëñ Morane Sali Maam Morane Sali doo ci yam doo ci yam da naan njabootu Maam Balaay sax doo ca yem nga ne njabootu maam maaram mais boo génne koo génne ci maaram mu jeex nga ne njabootu maam Matar Ndumbe mi nga xam ne maam Matar Ndumbe te kokki moonu meññ waaye sunu maami bopp nag waaye sunu maami bopp nag ñun ñuy taxaw ci pojom bi muy njabootu sëñ kokki njagay sa wicc sëtu boo ko génnee ci baas bi baas bi jeex njaboot googu ñu ngi lay nuyu sëñ Saliou moo ne ca bopp ba di xalifam sëñ Afe sëñ Abo mu sëñ Modou Mamoun di xalifa sëñ Modou Mamoun yeble na délégation bu mag mooy ñi yéegoon ci tribune bi te limoon leen sànq yabal doomam sëñ Jiili Abdu Xaadir ak i njabootam ñu ñëw teewal la fi sëñ Mbàkke mu alaaji sëñ Takko dikkal boppam sëñ Ibra Ndar. sëñ njaboot sëñ Ibra Ndar. doomam Ibba. doomam sëñ Ibba Taal Mbakke. ñëw teewal sëñ Sidi. ñëw teewal sëñ Sidi. di xalifa sëñ Ibra Ndar. di xalifa sëñ Ibra Ndar. su ma tuddee loolu. ne bu tuddee loolu. sëñ Mamor Touba Toul. Mamor Touba Toul. ñëw dikk ci sëti sëñ Modou. ñëw dëkk ci sëti sëñ Modou Mamoun yi. ak sëti sëñ Gaawaan yëpp. ak sëti sëñ Gaawaan yëpp. sëñ Modou Abdou Wadoot. sëñ Modou Abdou Wadoot. sëti sëti sëti sëti sëñ sëñ affaire yëpp. ñëw sa sët sëñ affaire yëpp. ak euh, sama rakk yi yi. ak rakk boppam yi. ñooñu ñëw. ñëw. ñëpp ñëw ñëw fekk si loolu li muy wane. naa wane. sa ji nga yor. sa jikko jooju. ñëpp dañ la cee war a xool sëriñ Basiiru mi koy seereel sa xalifa ni mënta gën nit te gënoo ko jikko ku bëgg a gën nit ñi da ngay wuti jikko ju rafet man kenn mënu koo gën moom wala gën maa jege yàlla wala gën maa jege sëriñ Tuuba te sa jikko rafetul sa jikko rafet na te moom du waxantu de jógloo ko sax yombut waaye yow mën nga koo jógloo xam nga sëñ Modou Kara jógloo ko yombut jukko la du waajur wi jukko ji la moo tax ñu jox la ko dajale nga Sénégal kon ñun senegal nan xam ñun senegal nañu xam sëñ Bassirou mi kan la kër goo dugg mën nga fa dara ne du wax di tudd kenn kenn ku mën a déplacer sama jëm ah, ah, ah, ana kooka kon jàmbaar nga maa ngi nuyu itam dama ko bëggoon a jiital ki fi toogal murid yi ki toogal murid yi teg ko fi muy jëwriñ mbakk yu fay eh, boo duggee ci dëkk jaaral ca bunt ba wane na nag Ablaye Dia wane ne Abdoulaye Dia sëñ ko ne Abdoulaye Dia sëñ bi ne nuyoo bi day jaar ci yow jaar ci Moustapha Ndiaye sa doomi nday jaar ci ñëpp ne sëñ buub dooma ma nga fi soxnaa ma nga fi Cheikh Amar Cheikh Amar moom sëriñ Saliou Mbacké njabootam a nga fi ne biig ci guddi sëñ Bass ne jokkoon na ak Cheikh Amar moom Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké borom gotam mbuur kon daal Ablaye Dia Serigne bi ne nga tudde ko ci ñuy homme d'affaires yëpp Racine Sy la lay wax sa mbokk <laughs> dëgg la ne ne Racine Sy daal mu baax moomu ne di kenn ci réew mi kenn ci diine ji ndax diine ji fu fi nekk rek yow la fi nekkal moom it mi ngi toog xanaa déggoo woon bi wax ci xel koom ne moom milliardaire ak yor fifteen la yemale yëg-yëg rek yëg-yëg bii moo ko gënal ak multimilliardaire kon bu ma la tuddee day mel ne tudd naa ñëpp foofu la ne kon nag ginnaaw wax nañ ci turu sëñ Muntaxa tàggu naa ko ñëw nga ci man fekk nga ma fa kon kooku euh, da lay wan ni la li nga woo ku ñu ni yor na dara ak ku ñu ni yoru ko ab sëriñ la wala taalibe la wala ku nangu la ñoo ñëpp yëg nañ ni li leen fi moo ko fi indi te sëñ Muntaxa wax démb ni wax na ci yow ginnaaw sëñ ko sa ñëw na te wóolu nañ ko te mi ngi ci wetu sëriñ bi wax na ba noppi du ma dugg ci waxi sëriñ Muntaxa waaye tàggu naa ko bu ñu woon toogal day toog ne waxam ak moom sëñ Modou Kara la fa kàddum jibaat ak moom moo xam ci jasaay ba moo xam ci téléphone li li mu waxal waa Cissé waa Sénégal waa duna bi li wax te ne ci man ca sëñ Bassirou Khadim ba ji ci man doomam la ñoo bokk deret ñoo bokk lépp waaye. diggante si jàngat na ci man loo xam ni ma jàngat ko ci moom te mu waxal ma ko boppam danaa mën a gëm li mu wax yéen taalibe yi àndal ànd ak moom yéen xarit yi yéen soppe yi yéen ñi bokkal àdduna da ngeen ko jàppaat te teewaat ko ndax nit la dalay def baaxul ma ne ma ne soxlawul taalibe bu dof soxlawul xarit bu dof ñi ma àndalay nit lañu soxlawu ma mbokk bu dof sëriñ bu dof bu man du ma jébbalu ci yow kon nag nañ la jàppaat ak fukki loxo te bu dër ndax yow day wóolof na laa yónni fure kon ñi jëkk a wax kon ne ku mu ne su ko tontu waaye ci sa kàddu yow mi leen fi woo yaa ma leen di tontul santal nu leen njaboot sëñ gaawaan sant nañ leen fa ma ko tàmbalee njabootu borom daaru musi di ñooñu di rek sëñ bi sës ci moom ñëpp sant nañ la ndax nit bu fonkee la nga am da nga koy fonk sa yar ak sa teggin gépp dajale nga leen ñoom ñëpp sant nañ la bi rajo yi wax na ko télé yi wax ko bindkat yi wax ko Ablaye lu may wax ci rek sant nañ la gërëm nañ la Cheikh Mamadou Muntaxa sant na la gërëm na la ndax mu ne su la wax su ko ndax moo fi ne li ma ciy junj rek nañu xam ni am nañu kilifa goo xam ni ko sakkanal nañ ko déglu nañ ko jàpp yombul de ah, ne nit boo àndeek moom sañ nga koo gërëm cinquante ans sañu blaat boolenu ma jàngat ko xam ko danaa mën a wax ak nit ñi nañ ko jox tum bi rek sëñ Muntaxa nañ ko jox tum bi rek tu nañ ko ni Seex Muntaxa am dokk baa ngi nii woo mat nu rek nun gëmm rek mu woo mat nu fu mu nu jëmee baax na te bàyyi nag coow yi coow li bari na li nga woote du lu woyof dangaa woo addina bépp dangaa woo ab jub woo dëgg te nun nu war a yaruwaat nu war a yaruwaat boolewaat suñu bopp boolewaat suñu bopp kenn bañ a dogal kenn bañ a kenn bañ a xool kenn bañ a xool kenn bañ ni nii la ñu déglu sëñ Muntaxa rek sa woote bi mi jàng message la mag mu toll ne nun ne yàlla dong moo nu dimbali ak Sëriñ Tuubaa kenn dimbaliwul yàlla rek a mën ci man dara soxlawuñu ni melal doomu aadama daan ci dugal message bi di la sant nag bu baax bu dee ci wàllu àdduna ñu ngi sant président Macky Sall nag ne sëñ Basiru président sa xarita na ko wax ne ko sëñ Moustapha Abdoulaye Karam mi ngi lay sant ne premier ministre bu Gorée boobu Amadou Ba gis na ko démb mu yóbbaale lépp ci yow lay jaar nag nga santal ko ñëpp gërëmal ma ñëpp. sëñ Modou Kara li des dana ko àggale ndax bu ma fi taxawul woon bu ñëwee mooy toog ci jataayu maamam yooyu wax ak yow yow mii bu ñëwul woon yaay taxawaat sa jataayu maam wala sëñ Saliou mais wax ak ñëpp wala kenn ci njaboot gi dégg na fi sëñ Mahamadan sëñ Sidi Mbacke Cheikh Abdou Khadir sëñ Siidi Cheikh Abdou Khadir Cheikh Mourtala moom wax na ko Cheikh Mourtala moom wax na ko sëñ Mourtala bu duggee ci day juum te benn sa fi ne ahlu Tiwaawan ahlu Njaasaan ahlu Ceneba ahlu Laayeen ahlu Ñaseen ahlu ahlu ahlu ahlu ahlu Taaleen ahlu jullit ñëpp a ngi fi ku ci duub sëriñ ab taalibe la taba man tawasala bi wa man taalaka bi ak ku jàpp ci ku jàpp ci lu yàgg yàgg rek ne ku jàpp ci lu yàgg yàgg rek da nga yóbbaale ñëpp sëñ Modou Kara dana yeggal li ci def mi ngi lay sant nag di la gërëm ne yow sëñ Modou Kara général xam nga ni sëñ Touba lépp la ne doye di woo de xam naa doye di woo de bu la neexoon bi nga ñëwee kenn ku nen ne nangul ko la ko yàlla defal boo demoon bu ma sañoon duma fi yàgg ndax njaboot gi te sëñ Bas mel na noo xam ni dal rek laa bëgg gis nga njaboot gi niñ dale kenn yëngu tuut ak niñ la def bu la neexoon nga toog ba ma wàcc nga ñëw wax nga xam ne kii sama maga ñoo bokk xëyandoo Daaru Musi xëyandoo Kër Sañaafe xëyandoo Daaru Salaam ñu xëyandoo ci ëtt yëpp nga ni naa ànd ak yow boo noppee ma wax loolu mënees na cee jàngat loolu la mag ñaan deewoon yal na la yàlla sàmm gën laa dimbali dimbali waat suñu doom ji ba fa nga bëgg nga yegg fa ne xaw ma loo soxla waaye luñ la joxoon ci réew mi bu dee lu xott ku da ko ñaw bu dee lu sasaraat da ko dajale foofu rek la mën a yem mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan lii mu bañ a nekk seen mujj dajale te yàlla sàmmal nu la sàmmal nu kilifay diine yi Cheikh Mamadou Cheikh Mamadou Muntaha te ñu bàyyi xel nag ni nañ jaamu ji yàlla moo fi des kat sëñ bi fàggul nañu lépp kenn doonu ci dara nañ ko bàyyi xel déglu na say wax say wax ci laay saraa jukko la ñuy magaate waaye du yaat ku fàtte li taxoon ñu bind la loo dajal du baax bi sëñ bi bi muy ñëw mi ngi ànd ak doomam ju baax pa pap pa doomam ju baax ju ñuy wax Pape Demba bi tey Pape Demba bi tey di doomi sëriñ bi waaye Pape Demba bi tey di kenn ci président la république moom it ñu koy gëm ak ancien directeur douane Omar Diallo waaw bàyyi laat sa ci lu am solo loolu nga jàng sëriñ Bas lii day wane ni la ñoroon maamam képp ko ñor muy sharia ak l'islam par parloo ci diine yàlla yàlla guddal saw fan délégation bi nga xam ni nag dañoo gunge ci Serigne Moustapha Abdoul Akram mu teewal fii njabootu soxna Anta Ndiaye ànd ak ay rakkam ni ko Serigne Bass waxee muy Serigne Bakke Anta ak mbooleem ak fati borom gaawaan yëpp ak mbooleem ak fati Serigne Afe yëpp délégation bi nag Serigne Cheikh Aliou ku ne xam na ni xaritam la léppam la président Moustapha Niass. démb këram la nekk fa la reere yónni de ay ndaw mu ànd ak ñoom soxna Aminta Tall moom itam ja sàkk na ay nit yu ànd ak Serigne Moussa Abdoul Akram soxna Marie Xemes Ngom Ndiaye ministre de la santé et de l'action sociale jël na ay ndaw boole kook Serigne Moustapha soxna Fatou Diané sama ministre ministre de la femme de la famille et de protection des enfants doomi daara ji président dénk daara moom itam am na délégation bu mu yónni ci Serigne Bass jël ay ndaw sàkk leen boole leen ak sëñ Moussa la karam borom këram teew na di directeur Moustapha Guèye mu mel ni colonel Omar Diallo colonel à la douane ku ne xam ne digganteem ak Serigne Moussa Abdoul Akram colonel Ousmane Kane moom itam ànd na ak Serigne Moustapha premier président Ahmed Baran Thiam. moom itam ànd na ak Serigne Moustapha Abdoul Akram procureur général Gora Seck moom itam ànd na ak Serigne Moustapha Ba moom itam ànd na ak Serigne Moustapha Abdoul Akram Serigne Omar Fall PDG moom tam ñëw na professeur Tunkara maire Hadji Sène moom itam ñëw na maire Mbaye Jonn ànd na ak Serigne Moustapha caw Moussa Thiaw monsieur Mbeng directeur général bu société. Ibrahima Diagne monsieur Pape Tobbi Gaye secrétaire Sénélec moom itam ñëw na monsieur Pape Séni Mbaw moom itam ñëw na Daara monsieur Serigne Mbuub PDG CCBM moom itam ñëw na ak Serigne Moustapha député Ibra Sow député Dior Mbeng ñoom ñëpp ànd nañu ak Serigne Moustapha Abdou ngir jëmmal bis bi ngir bis bii nga xam ni Serigne Saliou moom Serigne Afia mi nga xam ni tey. mbooleem njabootuk borom gaawaan ak mbooleem njabootuk sëriñ Afia mooy seen jur ndax mooy ki nga xam ni mooy doomi sëriñ Afia ji fi des moom itam euh, sëriñ Moustapha la délégué yebal ko sëriñ Moustapha ñëw nag ñëwin woo xam ni mën naa ni njabootuk soxna Anta Ndiaye ak sëriñ Mor mën nañoo dugg ci biir monsieur Cheikh Amar PDG TSE moom itam ñëw na euh, sàkk na ay nit boole leen ak sëriñ Moustapha El Hadji Babacar Ndiaye Makoddu président Mouhamed Diop moom itam ñëw na Serigne Bassirou Lo moom itam ñëw na ànd ak Serigne Moustapha soxna maam Penda Sarr dafa def mobilisation bu am solo Serigne basiiru Serigne Moustapha nee na mi ngi la koy seereel di ko sant di ko gërëm ci féete gi mu féeteeg Serigne bi soxna Kole Saw moom itam ñëw na soxna Fatou Ndaw soxna Sooda Mbacke Serigne Mamor Mbacke transitaire di doomi Serigne Moustapha di xaritam. moom itam ñëw na sëriñ Jili mbakke maam Cerno moom itam ñëw na sëriñ Moodu Mbàkke Abdul Wadoot di taawub sëriñ Moustapha bokk ci coordination bis bi moom ñëw na sëriñ Baara Mbàkke Lakram sëriñ Jili Mbàkke Abo sëriñ Ibrahima Tall ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo bàyyi ko Daaru Salaam yépp sëriñ Cheikhouna Mbàkke Amidoun sëriñ Mourtada Abdoulaha sëriñ Mourtada Abdoulaha day kenn ci sëriñ Moustapha di xaritam di léppam sëriñ Modou Mbacke si ak sëriñ Lamine Mbacke maam Thierno sëriñ Moussa Diané seriñ Mabey Fall inspecteur impôt et domaine sëriñ Mbacke alhaaji sëriñ Tako moom itam ak sëriñ Muba ak ak mboolem ak sëriñ Moubarak Abdoul Akram ak mboolem njaboot sëriñ Abdoul Akram soxna Baali Muntaxa yebal na sëñ Muntaxaam sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Abo Muntaxa soxna Ndey Mbacke Mamor. soxna maam Mariam sëñ si Asu Fay ak daayira ndakaaru bi Touba diaspora bi kenn desul ñëpp ñëw nañ léegi Serigne Cheikhouna Mbacké transitaire ñëw na ak Serigne Jili Mbacké mum bay Fallu ak Serigne ak Serigne Cheikh Mbacké mum Serigne Abdou Salam mum Serigne Massamba ak soxna Nena Gay léegi nag mum soxna Bintum Serigne Massamba léegi nag dañuy dugg ci cérémonie bi waaye peex dafa am délégation bu agsi léegi muy délégation Fat Diaré ministre de la femme di jàmbaar di doomi daara président dénk ko daara yi muy doomi Cheikh Mouhamadoul Mountakha ku ne gis na ku ne organisation bi ko président organisé loon ni mu ko réussité waaye délégation soxna Khady Mbacke ànd na ak yaayam dikk dinañ ci ñëw ñu ngi bind délégation bi soxna Khady moom Serigne Ahmadoul Mokhtar moom Cheikh Moustapha soxna Khady ànd ak Baba Janam ñoom ñëpp dinañ ñëw ci délégation bi incha allah soxna Musli Cheikh Diop Kokki délégation soxna Bali bi moo ko coordonné def na teraanga ngay bari ci bi soxna Musli moom Serigne moom soxna May ak Serigne Modou Habib ànd naag soxna May Moroon ak soxna Mame Binta Sall léegi nag Serigne Makhtar Diène agsi na. léegi nag dañuy jublu ci parole yi alaaji Ablaye Mbaye Peex cheikh cheikh Darou Salaam biñ limee sama yaram daw de cheikh sëñ Moustapha Abdoula Karam ñu ngi koy ñaanal ak yow sama yaram daw na ñu siyaar bu baax sëñ Sidi Mohamed